juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili ak lu teg yegsi leen ak jàmm ci xibaaru ngoon si ñu jukki leen da ci gën a fës ca bopp xibaar yi ñu door kook lawteefu jàngoroy coronavirus ci réew mi ni ki démb nag jàpp leen ni juróom benni doomu aadama ñoo daal di toftalu ci lim bi jot ñàkk seen bakkan ginnaaw bi ma duggee ci réew mi ba naga nii ajjuma tey yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru p février ci atub ñaari junni ak ñaar fukk ak benn jàpp leen def nañ lu toll ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama la ñu saytu seen wàllu wérgu yaram ci ñooñu wax nañ ni ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo dellu si amee doomu jàngoro ji lu ñeel cas communautaire lim bi itam ma ngay wëy euh, di gën a yokk saa su ne ba tax na fii ci diwaanu Thiès wàññi nañ fi juróom-ñeenti doomu aadama yu amee mbas mi tax xamuñu ka leen ko wàll dinañ ci dikk ci biir xibaar yi région bu Thiès département bu Tivaouane communauté rural bu Taïba Ndiaye ONU Femmes ak groupe Azura ba tey lëkkaloo ci ak centrale électrique bu Tobène ñoo doon amal ab formation jëmee ko ci jigéen ya nekk ca gox boobee ci lu jëm ci wàllu dëwlin ak ci biir loolu nag jagleel nañu leen itam ay jumtukaay rek ngir bu leen mën a yombalal seenup liggéey waaye itamit xalal nañ leen yoon rek ngir ñu mën a jël loole mën ko jaay ca bitim réew dinañ ci dëkk itam ci biir xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo fii ci diwaanu Thiès naqar daal di ab tiis daal di dal ci làngu politique gi rawatina ñi féete ci parti réew mi bu Idrissa Seck ki fi nekkoon député ca pencum ndawum réew mi ba noppi it tamit nekkoon coordonnateur départemental bu parti réew mi fii ci diwaanu Thiès di Mamadou Faye Jallaan làqu niki àllarba gi ñu génn foofee ca hôpital régional bu Thiès dinañ ci dikk ak ay kàddu seede yu nga xamante ne yëkkati nañ ko jëmee ko ci jëm jooje mbirum Ousmane Sonko moom moomee nag demoon na foofee ca université Cheikh Anta bu Dakar loolee nag démb la xewoon na li doonoon tukkib doonoon ab tukkib nemmeeku jëmee ko ci étudiant yi bokk ci parti Pastef te nekk foofee rawatina ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo jëlee woon ay gaañu gaañu ci jàmmaarloo yi ñu doon amal ak taqadar yi ci fan yi ñu génn dinañ ci dëkk ci nu mu gën a yaatu Pape defal nañu ci ab njàngat dañu yi itam xibaaru tàggat yaram li yëpp ab tënk la mbokk yi nes sa ginnaaw bàkk bi bu ngeen taaxee loo ñu ànd ak yéen ci faram-fàcce gi asalaamaaleykum ñu nuyu leen fa ñu leen daan nuyoo dañuy door ak xibaar yi ni ma leen ko waxee ci bopp xibaar yi tolluwaay jàngoroy coronavirus ci sunu réew ñu ki démb alxemes gi. juróom-benni doomu aadama ñoo daal di toftalu ci lim mi jot a ñàkk seen bakkan ginnaaw bi mbas mi duggee ci réew mi ba naga nii tey ajjuma yam ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février def nañ lu toll ak ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom doomu aadama la ñu saytu seen wàllu wérgu yaram ci loolu tamit ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo dellu si amee doomu jàngoro ji lu ñeel cas contact wàññi nañ ci téeméer ak ñaari doomu aadama yu ko amee lu jëm ci cas communautaire itam ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi lim yi ma ngay gën di yokku ba tax na wàññi nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yu amee mbas mi te xamuñu ka leen ko wàll ci loolu nag fii ci diwaanu Thiès am na ci euh, juróom-ñeent yu nga xamante ne amee nañ euh, ci cas communautaire yooye ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci aji tawat wér nañu daañu dallu ci seen ay mbokk noonu la ñuy defee jaar ci ministère de la santé et de l'action sociale daal di teewlu ki yoroon bataaxalu mbokk yi communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tay bosu adjuma, fukki fan ak juroom ñent ci wéru février mi nek ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may waaj ci ñaari junni ak téeméer ak juroom benn fuk ak juroom ñett test yiñ def ñaari téeméer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent ñoo ci positif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 téeméer ak benn téeméer ak benn yooyu seen lim nii la tëddee fukk ak ñeent ci Rufisque juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Kër Massar juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Kër Massar ak Mariste juróom-benn ci Parcelles Assainies ñeent ci Ouakam Patte ak Pikine ñett ci HLM ñaar Arafat Grand Dakar Liberté 3 Liberté 4 West Foire Point E Scat Urbam Sika Foire Ben, zone B Castor Centenaire Cité Gendarmerie Cité Keur Cité Fort, Derkle, Guepel, Anne HLM Granyov, Kunun, Liberté 1, Liberté 6, Medina, Nyaritali, Wagounay, Potimbao, Sakrekeur, Sika Baobab, Tiaroy ak Yembo. Ti rejan yi, amnen ki, gyrom nyar fuk ak gyrom ben, nyo hamne, nyo ka kominoteri. Fofu tamit, ti rejan yi, sen lim ni lote dey. fukk ak ñaar ci Kaolack juróom-ñeent ci Louga ak ces juróom-ñett ci Saint-Louis juróom-benn ci Kébémer ñeent ci mbuur ak tuba ñett ci Ziguinchor ñaar ci Fatick Popenguine sokon ak tàmba benn ci Bignona Daaru Musti Kaffrine Matam dina Yoro Fula Nioro ak puut ñaar téeméer ak fuk benn fukk ak benn si malade ñi nga xam ne ñu ngi leen toppoon ci biir kër yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci lal hôpital yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee juróom fukk ak ñaari malade ñoo nekk ci réanimation juróom benn malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ci bësu tey dalee ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñaar ak ñett fanweeri junni ak ñaar ak ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-benn ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent wér nañ ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar juni, seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñeenti ak ak ak si loxo docteur yi ak ñi nga xam aussi ñu ngi ci lalu hôpital yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna xare di ñaanal nyonyu des hôpital ak ñi nga top ne ñu leen topp ci biir kër yi may tan banyu ñu génn ak mi ngoog euh, mu nekkoon euh, bataaxal ba bàyyeekoo foofee ca ministère euh, de la santé ñu addu ci leneen région de Thiès département bu Tivaouane communauté rurale bu Taïba Ndiaye ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ñi di waa ONU Femmes ak groupe Azura lëkkaloo ba tey ak ñi di wa centrale électrique bu Tobène Power. ñu ngi doon amal ab formation jëmee ko ci jigéen ñi nekk ca gox boobee ci lu jëm ci wàllu dëwlin ak saabu ci biir loolu jagleel nañ leen itam ay jumtukaay rek yu mën a yombalal seenub liggéey waaye itamit xalal leen ay yoon ngir ñu mën a dem ca biti réew jaayee fa loolee li nu mel nag kuréel yooyu dañu ko def rek ngir dimbali jigéen yooyee ci seen wàllu koom-koom ginnaaw bi nga xamante ne mbas mi nasaxal na ko ki yoroon seen kàddu bis la ñu teewlu ci micro Thiès 24. Euh, di ndaw soo xamante ne euh, kuréel bu tudd ONUFEM moo euh, ma yónni lëkkaloo ak groupe Azura bi nga xamante ne Toben Power miy defar fii électricité moo moom la ñu lëkkalool ku tudd Seynabou Ba ñëwoon ci ñun ne ñu vraiment dëkk yi gox yi nga xamante ne ñoo nekk li wër Taïba Ndiaye ak Minam Euh, ñu jéem a xool nan lañ leen di euh, suqalee pour que ñu mun a euh, jëm ci activité boo xamante ne activité boo xam ne lu lu pérenne lay doon maanaam loo xam ne du du lu ñuy def tey rek mu jeex waaye fii ak ay ati ati at dinañ ci mun a génne koom Covid 19 bi nag doon mbas mi nga xamante ne dafa dafa wàññi koom-koomu nit ñi bu baax a baax a baax ba tax na ñu xalaat saabu. ndax saabu moom la ñëpp di jëfandikoo waaye ñu xalaat ñaari façon yi saabu bu njëkk bi muy saabu fóot bi ndax tey boo demee ci marché Sénégal bi di nga gis saabu yu bare yoo xamante ne ñu ngi koy jëlee bitim réew te loolu baaxul ci sénégalais yi baaxul ci koom-koomu dëkk bi ñu ne nañ leen wan nan la ñuy defee saabu fóot boo xamante ne saabu bu jéggi ayib lay doon euh, tuddee ko cosaan ñu génnee saabu boobu gannaaw boobu ñu wan leen itam euh, saabu yaram ndax tay bu ñu la joxee omo ne la sangoo ko doo ko def donc saabu fóot du pour yaram ñu wan leen saabu yaram nan lañ koy defee tàmbalee ko ci saabu bu ñu tuddee antiseptique bo xamante ne lépp loo xamante microbe da koy dindi euh, ci set settal sa yaram mais itam selal ko ñu koy defaree ak linga nga xam ne moo ñu wër euh, nekk ci environnement bi te bañ a environnement bi muy lan muy garabu bi muy poftan bi Euh, muy itam euh, euh, sab-sab bi nga xamante am nañ ko waaw so Tobeen Power itam hmm. ak ONU Femmes ne gannaaw lolu du ñu jël jigéen ñi rek di leen jëndloo mu doon lu diis ci ñoom dañuy oyofal seen seen façon yi liggéey hmm. ba tax ñu jël utal leen ay machine yoo xamante ne diwlin yooyu ñuy génnee dañ ko mën ci muy bu bi muy xooxu buy bi nga xam dañ ko buñ ko bu ñu bu génnee diw bi euh, di ko mun a liggéeyee euh, muy sésame bi di ko mun a itam jëfandikoo ñu am jabet jëfandikoo ko ci saabu bi mais itam di ko mun a jaay waaw looloo tax daal euh, ñu ñu ñu xalaat si loolu seen lëkkaloo itam muy Tobène Pao ak ONU Femmes war a yóbbu jigéen ñi ci nan la ñuy jaayee ah ñu ñu xool Euh, laboratoire yoo xamante ne euh, yu yu ñu certifié la yoo xamante ne formule yi ñuy jox jigéen ñi euh, buñ ko naree jaay fii waaye génne ko itam ci sous-région bi. mi ngoog mu nekkoon waa Tobane Power ñu àddu ci leneen ab tiis dal fii ci diwaanu Thiès rawatina ci langu politique gi rawatina ña fere ci parti réew mi bu Idriss Seck. ki fi nekkoon député ca assemblée nationale waaye itam nekkoon coordonnateur départemental bu parti Pastef fii ci département bu moom du fay Faye na wàññeeku ni kii àllarba gi ñu génn fii ci hôpital régional bu Thiès ginnaaw bi nga xamante ni feebar wu ndaw tëraloon na ko moom nag mujj nañ ko denc foofee ca Babac ba mu dëkkoon ci teewaayu kilifa yi bokk ci parti boobe ginnaaw loolu nag kii di Abdou Aziz Faye bu forum civil.

Moi a fait ci askan wi li parce qu'en même temps il était conseil départemental comme c'est la première région minière du Sénégal préoccupation askan wi qu'il daan ànd di au niveau central waaye aussi mu wàccaat ci askan wi ba li ma ci mën depuis 2017 bi mu wàccee paré mandam mais il faut continuer d'accompagner accompagner lépp lu développement Mon développement moom là ko le 23 décembre 2020 il passé bi ité e un rapport 2019 ñu ñëw ci région qui Thiès la dem comme première région kérok ci CRD bi devant le gouverneur mom mo wax au nom de tous les élus locaux du département comme vice-président waaye gannaaw suba gi bi ñu session spécifique destinée aux élus des zones minières mom suis présider président moom ak Moustapha Aydara am fa lu mu fa jël comme proposition mu ni daal daje bi war nañu résolution pour ñaax état bi pour que fonds yi nga xamni amel nañ ko collectivité territoriale yi 2010 ak léegi ñu fexé ba nañ ko génnee mais keroog draft li ñu draft manam xalaat bi ci mom la jógee waye daf ko bind élu fa dajewoon yëpp rafetlu ko ñu ñu ñu ñu jekk-jekkalaat ko ba résolution bobu tay envoyé nañ ko comité de ay téye mën naa ni mooy acte yi nga xam daal ñun yu mujjé posé mo lay won ni Mamadou Faye Dialane nit la won bo xamni liñu xam ci mom moy compétence ndax euh, diplômé la ci walu économie nekkoon cadre aussi nekkoon koo xam ni aussi dafa am intégrité li ñu naan nit ku intègre la woon ndax ay valeurs yi nekkoon ci moom parce que moom su ñuy wax homme politique dañu xam ni moom politique li li ko ci dugal mooy daf ci dugg dans une logique de développement pour taxawu askanam pour taxawu gox-gox. Ousmane Sonko ca université Cheikh Anta Diop loolee démb la xewoon nekkoon ab tukkib nemmeeku jëmee ko ci étudiants yi bokk ci parti PASTEF rawatina ñi nga xamante ne nag. dañu jëlee woon ay gaañu gaañu ci jàmmaarloo bi ñu amoon ak euh, takk der yi ci fan yi ñu euh, génn anam ba mu duggee ca bërëb boobu ak na mu fa génnee nag moom njiital parti Pastef ki di Papi Seydi defal nañ ci ab njàngat ñu teewlu ko ci ni mu gën a yaatu. ginnaaw bu mu defee génnam bu njëkk foofee ca l'hôpital bu Grand Yoff doon seeti génn ci ay ndawam lu amoon ay gaañu gaañu yu metti ci manifestation yi ñu weesu démb ci alxamis gi njiital Pastef la Ousmane Sonko demaat na fële ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru sabab ba doonoon ngir seeti génn ci ay ndawam lu amaat ay gaañu gaañu ci manifestation yële ñu génn waaye lanu fa nemmeeku bokk na ci teeru bu am doole étudiant ya génn booloo won ko ni ko jox nañ ko bopp moom moomee njiital Pastef la loole nag nekkoon lenn ci lum fa doon xaar wala sax di ko fa séentu moom usmaan Sonko waaye ci biir dox ne meeku boobee moom Ousmane Sonko njiital Pastef ba daa dina fay amal ay waxtaan ci digganteem ak ndongo daara yi nga xam ni ñoo nekk foofe ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ay kàdduy masawu waaye ay kàdduy cant ak ngërëm waaye it ay kàdduy ñaax ngir gën a farlu ci parti boobee di Pastef waxtaan wa sax amaloon nañ ko ci diiru fanweeri simili ak lu topp loole ba mu ci jógee moom Ousmane Sonko ci la daa di àndaataaki njoñam daa di jubali fële ca cité kër góor gi étudiant ya ànd ak moom mbooloo mu takku lu nu fa nemmeeku gunge ko ba mu jóge ca bërëb boobee loole nag bokk ci luy firndeel ni étudiant yi seenu cofeel gañu amoon ca njiital Pastef loolee di Ousmane Ousmane ñu ngi koy sàmm ba tey waaye bu ñu sukkandikoo ci ay jenge ñaaleel Ousmane Sonko ñoom ñooñee nag jot nañu ñoo firndeel ni moom njiital Pastef la fas yéene naa wéyal loole ci fépp foo xam ne njooñam nekk na fa te amoon ay gaañu gaañu ci doxu ñaxtu bi nga xam ni amoon na ci diggante njooñam ya ak ñii di takk der yi ba am ñu ci jële woon ay gaañu gaañu Papi Seydi ci Thiès yi mi ngoog ñu jaajëfal ko moom Papi Seydi cant ak ñeel na ko loolee nag yemoon ak li ndar képpe bu njëkk ci xibaaru ngoon si noonee rek la def daal di sóobu ci xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceek jaawe kuwaate ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci atum 2021 bi njiitu réew mii di Macky Sall laata muy dem foofee ca AIBD ngir jëli vaccin yi jaar na foofee ca stade olympique bu Diamniadio ngir xool tolluwaayu liggéey bi li mu xamle rek moo di ni stade boobee fas yéene nañu ko inauguré ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février ci atum 2022 jëwriñ bi yor wàllum tàggat yaram ci réew mi di Matar Ba li mu xamle rek moo di ne liggéey boobe mu ngi avancé bu baax a baax xaalis bi ñu def ci boobule stade tollu na ci téeméeru milliards ak juróom fukk ak juróom ci suñu koppar stade bi capacité am toll na ci juróom fukki junni ak juróomi place ñëw ci làmb ji ginnaaw ba ñu toogee lu yàgg kenn waxul ci làmb ji kii di Gaston Mbengue fas yéene na déclarer saison bi si weeru avril bi si ñeenteemu bés bi mu ngi boole ñaari mbëri mag di combat revanche ci Lac ak Eumeu Sène bés boobu tamit kii di Modou Anta di doomu cees war na jàkkaarloo ak Diène Kaïré Le football nak. Euh, Ligue Sénégal de football professionnel programme huitième journée bi ñu ngook euh, ci Ligue 1 Jambar, dina dalal Gorée ñaari tali dina laali ak Nyambour, Pikine Petit dina dalal Ñambour Côte dina dalal Génération Foot ci Ligue 2 le CSFC dina laali Football Club J Fatik, dina Africa Promo Foot Renaissance dina dalal Jamono Duc dina laale ak Wakam dimanche bu jotee Sonacos dina dalal Port dina dalal Demba Diop ci altine bi Kër Madior dina laale ak Amitié Football Club. dem ci basket bi fële ci éliminatoire Afrobasket 2021 ca Yaoundé capitalu Cameroun suñu gaynde yu góor yi niki tey ci suba na ci ñaareelu fenêtre bi am na nañu ndam ci kaw Kenya score bi mu ngi jeexee ci juróom benn fukk ak juróom ñeent pour senegal ak juróom fukk ak benn pour Kenya ëllëg dinañu def seen ñaareelu jongante war nañ ci jàkkaarloo Mozambique laata ñuy jeexal ak Angola ginnaaw ëllëg foofee ca Cameroun. kon nag Jawe Koité ci euh, xibaar yi de la Thiès TV. jërëjëf Diawé euh, Kouaté cant ak ngërëm euh, ñeel na ko ci xibaaru tàggat yaram yooyu xanaa rek ma taftal ci rek leen wax ni xibaar euh, gi ñu jot ni tey ci ajuma ji ci ci lu ñeel wàllu làmb ji moo di ne ki nga xamante ne moom moo yor kàddu commité national bu gestion de lutte di Adama Bopp li mu xam ne rek moo di ne ginnaaw bi làmb ji toggee lu ëpp fukki weer ba léegi géew yi kenn tijjiw ko li mu xam ne rek moo di ne. njiitu réew mi ak ñamu àndal ña nekk ca kaw pare nañu rek ngir daal di ubbi waata làmb ji mu dooraat benn fan ci weeru mars bi ñu dëgmal li ci des nag moo di rek promoteurs yi nekk ci Sénégal ci ñoom la des rek ñu toggale tàmbali li nga xamante ni moom mooy seen ay euh, journée loolee nag ñi ko dëgg rek moo di waa groupe E-Media euh, nañ ci dikk ci suñu yeneen jotaayu xibaar xanaa rek nag di leen jaajëfal yéen ñu doon topp ci xibaar yi ba naga nii ñu nekkoon ci xarale gi Seydou nekkoon ci caméra yi Lamine Junior nekkoon ci régie ba ñu jaajëfal leen ci seetaan beeg topp gi leen wax ni bu leen tuxul seenub seetaan wéy leen di ànd ak ñun ci seen ay programme di leen jox dig daje ëllëg seen jotaay xibaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñu fanaan ak jàmm jaa ngeen jëf